mu leen di sonnal nga jot ko nga koy sant yàlla nga jot ko noonu nga war a sante yàlla ba pare nag fagaru taxaw pour xeex ko pour mu génnaat fii diiru juróom-benn weer yooyu wala lu ko ëpp donc ci loolu la ñu nekk euh, metti na xaj na lu doon gën parce que Gorée dafa am bind boo xam ne mun na gën a jafe fii ka feneen parce que ñëpp dañu jegaatoo dëkk bi yaatuwul ñëpp demalante mais ñun ñëpp li ñu def tey ba toog juróom-benn weer lu ñu si yokk rek ci euh, pas-pas ak taxawaay Euh, ku nekk xam ne da nga am wàll boo war a béy du affaire u euh, corps médical du affaire u conseil municipal maire wala affaire askan bi yëpp la dinañu war a mën wan virus bi ak euh, askanu Sénégal ne Gorée taxaw na pour xeex corona bi génn fi nu mu fi duggee ci fan yi ñu nekk